xam nga transhumé. Mhm. dafa nekk baat bu ñaaw boo xamante ni la ko taxoon a jóg du om politique yi. Mhm. ndax transhumance bañ koy créer di ko wax. Mhm. màng màngaan yi nga xam ne ñooy yor jur yi ne ci àll yi ñoom ñoo taxoon baat boobu jóg. muy baat bu ñaaw. nga xam ne ay mala lañ ko jagleeloon tey ñu dugal ko ci langue politique. ndax boo xoolee suñu mbokk alpulaar yi bu ñu mosaan yor seen jur yi ne ci àll bi. suñu nekkee ci benn secteur ba foofu amatul ñax. dañuy déplacé foofu dem beneen côté boo xam ne moo am ñax beneen dëkk loolu moo waral le mot transhumance kon nag loolu boo ko indee ci langue politique di ko wax ay nit yoo xamante ni jàpp naa ne dafa seen dëkk moo leen tax a jóg ñu tuddee leen ko dèjà ñaaw na mais tey ci contexte bi nga xam ne moom nga ma laaj muy Habib Sy du transhumance parce que bien vrai que nekk na moo boo xam ne nit ñi xas nañ ko tàmb léegi ndax transhumance dégg bu fekkee ne da ngay jógee fu amul dara pour dem fa am ñun ñëpp opposition la ñu nekk. Mhm. te xam nga ne bu dee ne koom-koom ñu ngi ko séntu ci état. Mhm. kon kii transhumé mooy ki jógee ci parti politique parti au pouvoir wala de l' opposition. Mhm. dem parti au pouvoir. kooku moo transhumé mais ñun ba tey ñu ngi ci ligne opposition.